Vassavou TV dañu doon journaliste. maa am mbégte bu baax a bu mag ci ñëw fii assister match bi nga xamné mo ngi opposé Xelkom ak waa ASC Kisat donc euh, am mbégte ndax dama ñëw fekk ñëpp di foo di ree vraiment avec zéro violence lolu rek moy mbégte bo xamné ne gën naa ko am donc comme niñ ko waxé nak ñëw bi tay liko gëna gën a sabab mooy ah, dañu xam ni ASC Kisane ak ASC Thialpoy bu ngol Ngolfagni nous ñoo représenter euh, notre zone de laay le département et la région au niveau des phases nationales ci ongam donc nous sommes très xam ñun je pense c'est une grande première une équipe qui a été la nek di dem ci ay phases nationales kon loolu waral ñun ñu nous tey vraiment andi suñu soutien soutien bi nag nous ñu jëndal équipement complet muy maillot un ballon pour leur dire que nous sommes derrière vous vous n'êtes pas seul vraiment nous sommes seen nous dinañ le plus li ñu mën également dinañ ko def kon loolu mooy vraiment li tax ñu ñëw ma ànd nag euh, vraiment Ousmane Diouf nga xam ne moom le wóolëre la nek aussi koo xam ne ku jàmbaare ci activité de jeunesse ou waaye itam ci wàllu développement donc euh, ma également ak euh, jeunesse bi mais que c'est aussi le président Pierre Pierre nga xam vraiment c'est un grand militant du du sport un grand militant du nawetaan mu nek ko xamné aussi depuis très longtemps mu ngi ciy yëngu ñu fekkante ci fekk ci leen yeen également ñom Antoine ñom président Malick ñom Moussa vraiment di leen wax ni vous n'êtes pas seul weto leen nañ taxaw seen ginaaw lepp li ñu mën dinañ ko def pour vraiment continuer li nga xamné amna solo déjà parce que fo ak bi rek sans violence bi rek man loolu moma ci gëna neex leneen lepp li nga xamné mo ci mënti am ndax ndam bi du génn jobaas ku gagné Jobaas lay ñibi ku ñu gagné tam Jobaas lay dess rek. effectivement tay nak euh, comme ni ma ko wax je suis venu à titre personnel vraiment pour apporter sama soutien waye comme ni ngeen ko xamé euh, plateforme bi ñu lancer muy jobas 724 gis ngeen activité yi ñu def. parce que Jobaas 724 dafa nekk acti mouvement bo xamné wala plateforme bo xamné manam jobas rek moko yitel parce que on s'est dit que war nañ mëna am cadre bo xamné du doon vraiment walu politique kessé mu doon lo xamné ku nekk ak fo mëna bok war nga ci mëna gis sa bop nous def des activités je peux les appeler des initiatives citoyennes parce que nous jëm ci le trousseau de l'excellence nous bi ñu def fan passé même les euh, même récipiendaires ça surprise la avons ci les meilleurs élèves au niveau des collèges et lycées du Diobass nous primer les nous leen ay sacs Nous leen ay fournitures ñu avons fait une activité qui xam ne reboisement vraiment lancer l'initiative vers un Diobass vert parce que nous avons ni du nawetaan kese un nous nous a une suñu verte dañu wara a xam ni vraiment lépp lu jëm ci wàllu garab dafa bokk ci loo xam ne mooy gaaral suñu dund kon loolu nekk activité boo xam ne def nañ ko te ñu ngi waaj yeneen activité yoo xam ne également ce sera des activités euh, citoyennes mais également des activités de développement parce que lu gën a am solo pour ñun mooy dañu nekk ay ndaw mais nañu amal jobaat njariñ leneen yëpp amul solo nañu fexe rek ni doomu yeneen dëkk yi di amal seen dëkk yi njariñ ñun nañu amal jobaat njariñ loolu rek bu amee doy na donc soxlawuñ ci lenen kon euh, vraiment ñu ngi leen di sante bu baaxa baax té naan ñëpp ku nekk tam xëj nga ci joba 724 ñu ngi leen ci wo bu baaxa baax voilà merci. li may tàggoo nag mooy vraiment ñi nekk ci zone bi fi ma ngi leen di ñaax commencé ngeen ñëpp tàgg leen ñëpp ne vraiment c'est sans violence ñëpp kontaan yi dama leen di ñaan ngir yalla ngeen continuer mu bañ am ben xex bañ am ben xulo benen zone bi nga xam moy zone 11 nga xam tam seen activité yi commencé wuñ ndax nit ñaa ngi soucié wu ci walu sécurité ñom aussi jeune yi ma ngi leen di wo vraiment ñu bañ dugg ci walu violence parce que xam nañ ni comme li ma ko waxee ku gagner coupe tam danaka li ci am li ci def moo ëpp kon foo bi la esprit bi rek lañu encourager kon ñu ngi wax ñepp vraiment ñu def des activités de vacances sans violence vraiment loolu moy jobas encore une fois merci beaucoup di leen féliciter d'encourager bu baax baax was not to me.